salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Sen Teranga TV c'est toujours un plaisir di ànd ak yéen seen différentes émissions alors dellu si waat nañ ci entretien du jour entretien du jour bi nag tey ñu am en exclusivité euh, suñu frère nga xamante ni voilà sénégalais yëpp xam nañ ko sénégalais bëgg nañ ko à travers sport bi nga xamante ni mu ngi koy def ñu koy wax Bou Siteu euh, Bou Siteu euh, référence jeunesse bi. di Siteu bi nga xamante jeunesse bi dañu ko topp macha allah. Mm-hmm. alors Bou maa lay nuyu le waaw ginnaaw bi ñu yàlla nag julli si bi di sant samay ñaari waajur waa di sant waa Géejawaay bu baax a baax di nuyu waa Tiwaawan Pël xam waa di sant daal waa Kër Njaay loo xam nga waa ba sàngal kaam Tëngéej xam waa fépp fu ba fan su Bou Siteu nekk rek maa nuyu bu baax di nuyu waa géeja Géejawaay bu baax amoo siis xam jàpp amoo kaat xam nga ba golfu xam nga maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Cité Fadia xam nga mm-hmm. waaw waa Sacré Cœur Almadi bi mameel xam nga ñoom ñëpp aw ma seen fay di bëggee waa Yoff mm-hmm. xam nga di la nuyu bu baax Ousseyn suma mm-hmm. xarit waaw su doom yaay maa ngi kontaan si yow bu baax a baax a baax ah bu man dama la dama la xawoon mere tuuti ah parce <laughs> dama la xawoon mere parce que man ak yow dèjà dañu yàgg non ah, avant sax ñuy dégg ay jeunesse beeg yooyu la mu nekk sama waay ñu doon faral def émission di ànd dañ daan ànd sax man ak yow parfois ñu nekk sa moto am doxe benn mission ñëwaat ma jekk rek bu déggatuma la su ma la oowee mooy loolu. non temps yii nag ah. aw woon niveau. te xam nga di guddi yi sama niveau. xam ah. nga dépassé na yenn niveau yi. Ah. yaa ma gën a xam mais maa lay bëggee te yow suma doom yaay nga. waaw yow lu yàgg dëgg la. dëgg la yow maa yor ñoo yàgg. yow maa yow ànd nañ fu ne fi loo xam ne sax ndeysaan du émission. waaw Ouzin nekk koo xam te ne ku mm. baax nga xam mm. Mm. waaw ku am référence xam nekk koo xam te ne waaw royukaay nga quoi ndax sa baax. waaw yow sa baax ñëpp a koy wax. dëgg la waaw yàlla defal la jàmm baax a baax a yow suma doomu yaay nga. Eh, ndeysaan donc ba ba ma comprendre la niveau bi la. parce man numéro jeunesse bi laa yoroon. waaw xam nga bi ñuy xamante boobu numéro jeunesse bi nga yoroon. waaw temps amu woon kóoru directeur ak kóoru transitaire <laughs> yaa ma gën a xam. léegi bi bi jeunesse bi bi nga amee. beneen numéro bu bokk numéro jeunesse mais wala nga ma woo ko jox ma numéro numéro directeur bi waaw mais xam ma rek euh. mooy loolu damay xam ne xam ma euh. waaw damay xam ne lépp rek maanaam ci ci jeunesse bi la commencé euh. ndax loolu waaw lu yàgg dëgg la daal te temps yi xam ma waaw temps yi kóolu jeunesse bee xew xam ma rek jeunesse loolu waaw jeunesse bi nekk joo xam ñu yàgg ak Bou Siteu lañ xam ma bëgg Bou Siteu am na si ñoo xam ne ndeysaan ñu ngi déggante ay at yoo xam ne mm-hmm. muus ñu sax tegante bët waaw ndax maanaam bëgg buñ bëgg Bou Siteu mm-hmm. te soxlawuñ sax di ko gisanteeg moom wala di taw di koy fréquenté wala dara waaw bëgg boosté rek te yàlla ndax maa ngi bëggee jeunesse bi ñëpp nag waaw jeunesse bi ñëpp daal aw ma seen fay maa ngi kontaan bu baax da parce que Ouzin la nëbbu de waaw tey Bou Siteu lépp lu ma mënti mel rek mhm. yàlla ak jeunesse bi la mhm. waaw ñoom ñoo ko def ci man tey ji képp ku ma rek waaw jeunesse bi la quoi. Mhm. waaw ñoom ñoo liggéey loolu ko ñoom ñoo liggéey waaw. léegi léegi man baa garaaw la baa ma comprendre la. baa ma comprendre la gis nga niveau bi moo toll foofu. non niveau bi la non non non duñ fàtte suñu <laughs> maanaam gis nga àdduna boo si tollee. di nga toll si niveau boo xamante ne nii mhm. maanaam. Mhm. waa yow maanaam yow yow yow am rek ngay gis. ak noo tekkee ak noo dimbalee ñi nekk sa ginnaaw te yow xam nga ne yow si Siteu ay junni doomu aadama ñoo nekk sama ginnaaw. xam nga kon ñooñu. dafa jot. dafa pare yow xam nga ne ma damaa yàgg ci ci aar yow xam nga dama yàgg ci affaire yi kon dafa jot ñu teg pas mhm. xam nga am lu suñu moroomi am mhm. yow yaa ma a xam xam nga niveau bi changé daal xam nga waaw yaa ma gën a xam dina changé incha bi nga doon dawal ba léegi bi nga hmm? doon supporté bi ñuy dem Colobane boobu ngay dawal ba léegi wala non non boobu boobu boobu naa ko maye nga ko waaw fan yi nag patriote yi ñoo ma jëndal benn moto buy jar un million deux cent mille ah, ah, presque moom laa a sax si suuf caabi baa ngi nii. ndeysaan wala caabi wala caabi seen te loolu xam nga ah. eh. eh. patriote yi la. maanaam mii dafa yàgg a xeexal patriote yi. Mm, mm. yàgg xeexal jeunesse bi. Mm, yàgg xeexal képp koo xamante ne nii xam nga. waaw yaa ngi ci côté maa ci réew mi xam di di yàgg bégal àdduna. Mm-hmm. xam nga ni Bou Siteu yow dama daan bégal man daw yow ku xam Bou a xam ni dama yàgg a bégal Sénégal. xam nga mooy loolu. Eh. yàgg taxawu patriote yi. waaw moo tax patriote yi nag bañ déggee ne yoratuma moom moo tax lu ma entraînement yi am patriote bu baax boo xam te ne xam nga mu ngi ba si diaspora bi yëkkati un million na ma bu am lii maa la ko jëndal pour nga koy yóbbu saal di entraîner. Uh-huh. mais ñëpp xam nañu sama niveau. dépassé na moto. <laughs> waaw vraiment ñëpp xam nañu instant yi <laughs> Ford. Ford Ford Ford ngay laal. ah Ford la <laughs> instant yi niveau bi Ford ah, ku ko def maanaam. àdduna nga ko defal daal. yaa ma gën a xam ndeysaan. mais da nga doon wax naan yow ay yow sa niveau dépassé na ay Côte d'Ivoire ak yooyu mais dañ jékki-jékki gis la Côte d'Ivoire. waaw mais xam maanaam Côte d'Ivoire yàgg naa doon naa sama niveau dépassé na Côte d'Ivoire. te ni ma ko doon waxee nice. noonu la demee mais ku si mel Favre. moo ma tëgg. ndax ñëpp xam nañ ne maa ngi ci beneen sport di pratiquer kickboxing. kickboxing waaw ku ci mel ni Eric Favre tëgg ma bi ma sama deuxième combat bi ma tëggal. Mm-hmm. boole maa ku ci mel ni Sonkotin koo xam te ne Japon la jugee koo xam mm-hmm. champion la. xam nga mu tëggal ma pare na ma dama lay yóbbu. Euh, Abidjan. Mm-hmm. mais ba mu ne Abidjan pour man Abidjan ak Côte d'Ivoire. ça fait diamétralement <laughs> opposé ndekete fi may wax Abidjan. xam naa nag dañ ma doon nëbu Côte d'Ivoire. waaw saa nag ne ma Abidjan. pour man nag Abidjan réewu tubaab yi la. Uh-huh. mais ba ma demee ba Abidjan ñu ne pourtant fii Côte d'Ivoire man lan lan man la non saa nag sama niveau nag Eric Fagour suufee nga sama niveau xam ma nekk fa ndeysaan mais. entraînement moom fa yóbbu woon. Uh-huh. ma def fa vingt cinq jours. vingt cinq jours bala nga ñëw si entraînement bi ba a cëpp ko dafaa gis eh, yi bari yi xam ma découragé woo waaye gisuma tubaab. ma gis fa ay ay ay ay oto yu yëpp comme ça super yi man man fi ñëw mooy fan. gaa ne ma non Abidjan nga ñëw. Eh. mais xam nga rek. Eh. waaw mais tamit Abidjan. nekk na dëkk boo xam ne dëkk bu neex la ba pare xam nga bëri na ay nit yu weex. waaw bëri na ay nit yu weex yu bëri yoo xam ne ñu ko ba allé bi ma nekkoon. secteur bi ma nekkoon. Mm-hmm. dafa nekk secteur boo xam ne de parce que maanaam. Mm-hmm. comme comme comme comme comme ça comme comme ñu ne cité port. comme port quoi si cité bi côté mm-hmm. Dakar bi noonu. waaw nekkoon foo xam te nii xam nga fu lix la. foo xam doo yëg ni sax bokkul ak maanaam ci banlieue bi noonu waaw ci ville bi foo xam te ni sama hôtel. waaw presque maag Tapha Tine rek presque ñoo bokk benn kër. ñoo bokk mais appartement yi bokk maa ngi woon ci ci suuf. mais moom mu ngi woon ci kaw. mais yaa ngi doon gis yaa ngi ko doon gis léeg-léeg yéen ñaar di nuyonte. ñoo bokk benn salle bu ñu entraînement yi. Uh-huh. presque suñu hôtel ak saal bi presque. presque mu ngi mel nii fii nii ak ak ak almaxd bi. Uh-huh. mu ngi mel ni banque bi fii ak. almaxd mais mais gis nañ nga génn. ci si ndox bi comme génn tafaatin boobu. waaw kii dañu foofu woon sax tafatin la mais bu noonu mu demee noonu. bu mais waaw bëri uh-huh. ko mbal ko galaas bi. mbal ko boo xam te lépp galaas la. xam ma dugg fa def fa trente minutes. mais loolu yooyu noonu yëpp dafa bokk ci sport bi. Mhm. mais xoolal king boxing ba ma jàppee Sonko. di ko dee seen <laughs> gémmañ mu leer na kon ba ma demee Abidjan tëdduma di nelaw. Eh. nit ñi dañoo teg si dañ maa dañ maa dañoo def ci sama eh. yaram loo xam te ni nii. Mhm. képp ku ma dóor benn dóor da nga koy yëg mais xoola Sonko ti ni ma def kanam gi mais xoola lii nii rek mais lii da xool la xam ne lii xeex maanaam da ngay xool léegi sama combat maag Laurent Ndiago king boxing ba première bi ak bii hmm. ngay jël ak teg ko maanaam si ngay xam ne entraînement rek a wóor génn dem préparer rek a wóor xoolal forme bi ma yor fii doo gis doomu doomu xool ba ne kii dafa jël wala dafa naan wala naturellement jàng xeex maanaam foofu ba ma fa demee mm-hmm. Abidjan mm-hmm. dañ maa jàngal fight mm-hmm. maanaam comme ça fii fi ñu nekk nii comme ça nii nii da dañ par dix minutes tubaab maanaam ay ñoo xam ay professionnel lañ lañ ma doon boole nii comme si kaas bi nii comme nii nee xeex waay yow ay tubaab yu ay mais dama leen kalaate ñoom ñëpp ñoom ñëpp mais mais mais kon la moo tax la bi jamono yi jëm jël euh, songo siin dem songo siin xaw ma dem jox victoire bi. mais maanaam si tànk bi moo doon dóor. Ah. ndekete loolu ay point la. Ah, de la pièce waaw dafa mooy dóor si tànk ma koy bàyyi muy dóor yëpp ndekete loolu. Ah. ay point la. léegi nag foofu la ma rawee deux points la ma rawee si foofu. mais ñëpp xam nañ ni sonko tin combat bi li mu daj. dóor ko ba toj kanam gi kalaate ko te man. soo ko di est ce que est kuwam laal na ma. man damay toog naa mais man soo ko dit kuwam laalu ma. laalu la moom jaaxal. te xoolal ñëpp gis nañ ni ma xeex ak moom. Mm. man daal lenn laay wax. waaw Eric Favre bu may tëggatee. Mm-hmm. na ma jox ñun ñu weex. Mm-hmm. Mm-hmm. te parce que ñun ñu weex ñu ngi leen di dóor. di gis seen kanam yi di dereetal. Ah, ah. ah mu leeral la kii kii mooy loolu cof nga ko. mais mais mais yow li nga entraîné kon yow euh, est-ce que sa copain. sa xaw ma sa copain est-ce que loolu ay ñoom euh, kii euh, Albouri wala sax ah Albouri sax copain. non non bokkul. Mm. man ah, su ma nekkoon saalu niveau laa nekkoon Abidjan saal boo xamante ne maanaam chaque jour cinq séances laay liggéey est-ce que yow loolu mos nga dégg mbër bu nekk fi ne man chaque ah, jour naa maanaam doo dégg sax ku ne la trois séances da ay deux séances ngay dégg wala mm. yenn saa ñu ne la sax trois séances mm. mais fii cinq séances te doo liggéeyal sa bopp ay course ñoo lay jël di la liggéeyloo mm. chaque jour cinq séances cinq heures du matin ba vingt deux heures ngay wàcc loolu métti na bu mais loolu dafa metti. metti na kay entraînement entraînement. mais yaa doon lekk aceke. bi nag moom sama xel nanguwoo ko. benn yoon lañ ma ko indil xama ma kii ma xam ne sama xel nangoogul ak aceke bi. nga ni xama ak aceke. <laughs> aceke xaw ma nan daal li ngay waxatee. aceke waaw. nga waxatal tur bi nga sama xel nangoo ko aceke. nangu ko sama xel nangu ko léegi <laughs> après. Eh. gars yi di ma indil ay pala sa ginaar xama waaw ay lekk yoo ah, xam ne ni waaw yu Sénégal yi ndax parce foofu dafa am benn femme bu fa yor benn restaurant boo xam ne nii xam nga mm. dafa jaay ay benn Sénégalais la nag mais day jaay comme ay ceebu jën ceeb bu xonq ceebu ah, yàpp mais bu nag foog nga foog nga commencé di lekk lekk international ay salade de fruits affaire yooyu lekk yi nga xamante ne dañ dafa siiw parce que attiéké plat mooy plat national Abidjan euh, ah. Côte comme ceebu jën nu mu nekkee fi plan national dëgg la la yow boo demee États-Unis dañuy am lekk feneen dañuy am lekk comme nga adapté wu bopp boo génnee Europe di mën a lekk seen lekk nag waaw dëgg la boo tukkee boo demee états ah. ah, ay pizza ko yooyu miin naa ko man man ay Europe yi boo ma demoon nii lekk yooyu rek laa lekk de <laughs> pizza hamburger eh. ay ceeb yi sax soxla ma ko eh. waaw <laughs> macha mais dañu dégg ñu da ngay def recours ci victoire waaw ndax lu tax recours bi manager bi dugal na recours bi sax ah. te parce que maanaam dama fa xeex xeex boo xam te nii. maanaam ba arbitre bi yëkkatee loxo Sonko ten ba arbitre bi yëkkatee loxoom. ñi fa nekkoon ñi fa nekkoon ñëpp a ñëpp a jug. di maanaam ne du yoon ñoo xam ne sax ndeysaan duñu ay sénégalais. ne ñëpp jug ne ne d'accord ñu. te parce que ñëpp dañoo gis li ma fa xeex. xam nga dóor ko dóor yi metti ba pare mu mu jël sama tànk ñaaree mooy bi ma koy njëkk a dóor mbot. ak ak ak beneen ba muy jëla sama tànk. Mhm. te te te te kickboxing jàpp tànk ñàkk nga. jàpp tànk ñàkk nga. te xoolal kon kon loolu moo lay wax ne Bou Siteu dafa man man man affaire dama ko teg ci règlement. Mhm. dañ ah. mën a réglement bi lii ak lii jàpp tànk amul. Mhm. yooyu noonu yëpp ma ñëw. ñëpp man man man ku ku xool da ngay xam ne Bou Siteu xeexu jàmbaar la xeex. waay waay et nga yokk quoi da nga yokk volume quoi. dama yokk volume mooy liggéey rek. ak ah, jaan léegi sa xeex dafa dafa dafa jub quoi léegi. dafa jub. par rapport bu Laurent Laurent lay def nii waaw tey day ñëw fëlax fëlax mais bii maanaam dama Abidjan dañ ma fa jàngal xeex yoo xam te nii mm. say loxo rek ay dem jàngal ma fa ay faayit yu yoo xam te nii xam mais mais fii boo xoolee fii xoolal rek xeex bu ah, doy waar mais mais kon dañuy ni recours bi recours bi xëy na dina aboutir si dara. non dugal nañ recours te recours bi incha allah ne. Mm-hmm. di nga gis verdict bi. Mm-hmm. dinañ demaat ba ba ba ba ba ñu sonkotin instant yi mu ngi Cees ñu ngi déggante sax keroog jaale si na ma. dinañ demaat ba foofu jël trophée bi si moom. Mm-hmm. maanaam bu recours bi génnee. <laughs> waaw da nit ñi ñooy demaat ba si moom jëlee <laughs> affaire bi ñëw indil ma trophée bi. <laughs> te te te bu ma ko indee naa ah. ñëw ba si télé bi fii. teg fii trophée bi ndax sénégalais ñëpp mooy félicité. yow gis nga jeunesse bi ñooy koy ah? ñooy jëli ji <laughs> mais xam nga rek maanaam fii da ngay xool la xam ne Bou Siteu fii dama joxe maanaam dama joxe li ma liggéey fee laa ñëw ñëw yen ko ko da am endurance quoi ba pare nag est que xam nga ni Sonko Tine mii nii mm-hmm. gisuma ku ko ëpp kàttan ah bon mais mais maamu bañ bañ dalantee ah. munul feeñ ndax ku dem Abidjan préparé di liggéey cinq séances ah, mais tey jii su te te te champion la ku mën a xeex la xool ko lu mu xeex. champion la. mais maanaam dafa daje dafa mm. daje ku koo xam dafa dafa jàng. Mm. ma damaa liggéey boobu. macha allah macha allah macha allah mais gis nañ sa tamit ak ak ak Reug ci yaakaar yow. mooy Reug Reug ak Boucher. xeex boobu seen combat ñaar seen box bi. waa amoon nga ci yaakaar amoon nga yaakaar ci ci ci Boucher. li day gagné Reug Reug. non non ma si woon yaakaar. non aw ma si woon yaakaar ndax ndax nit moom. Eh. maanaam bu ñu waxantee dëgg rek mais yow xoolal Reug li mu def ci MMA bi. Ah, mais da ngay xool Reug Reug li mu def ci MMA bi yàgg a pratiquer affaire bi. Ah. te Bousse ku ko xam xam ne Bousse influenceur la. Ah. Bousse fixé wul si ay kickboxing wala ay MMA. moom mooy loolu maanaam moom influenceur boo xam te ne xaalis lay topp. xam nga moom moom woo ko rek kii ko mag moom ñoo yam euh. waaw xam nga ne man ku xam Bousse da xam ne Bousse da du delloo avance. man maag Bousse ñoo yem duñ delloo avance. ñun daal dañ liggéey rek waaw nañ liggéey victoire défaite xam nga nit toppewuñu loolu daal xam nga na xam xam nga. yéen gars yi yéen ñaar da ngaa a yàgg buuse. Euh. gars yi sénégalais yi toppewuñu leen ay victoire rek. non non du loolu te parce que ñun ñooy bégal sénégalais yi. waaw maanaam man maa nekk nit koo xam ne man man man mel ni ma nekkee nii sax. amul lenn loo xam ne dama siy jublu. maanaam naan victoire victoire. fixe victoire non non. yow Bou Siteu ñëpp xam nañ ni Bou influenceur la. Hmm. man nga yaakaar ne man gars yi may tëggal man man maa maa nekk nit koo xam ne képp ku ma dugal sa journée. man dama yor ay plateforme yoo xam te ne sama compte Sinap. ñëpp gis nañ ay millions de vues laa fay am. te dama fay publier xam ne nit ñi wan jeunesse bi ne am naa bis. Hmm. mais publication yi noonu lool noonu rek ñu man. mais mel mel bu ma xeexul woon sax képp ku ma fayanda pour ma liggéeyee mm. la rek ma jàllale la sa bis rek mm. loolu ay millions nga may eh, fay waxantuma laa nag nga jël Bou Siteu dugal ko sa biir sa bis mm-hmm. bis bi day tàq mais yow xoolal journée yi fi xeex ma fi bëre yëpp ah nga yaakaar parce mm. nga Côte d'Ivoire entraîné nga temps bu yàgg ngi ko doon gis falaa tabaskee sax waaw yow fa nga tabaskee xam nga tabaski nga bàyyi sa soxna nga bàyyi sa soxna musul am musul am ci la dundee loolu waaw nu mu ko dundee rek xam ne Bou Siteu xam nga lii mooy métier man mhm. man maanaam sport mooy suma métier. Mhm. waaw Bou Siteu yow yow xam nga de ba ma xamee ba léegi mosoo dégg Bou Siteu mooy liggéey lii parce que mosoo ko dégg te bu amoon sax di nga ko xam waaw Bou Siteu xam nga mhm. amul métier xam nga kick làmb la sport daa laa jël def ko sa métier moo tax gisoo sport côté kick boxing bu ñëwee MMA bi sax ku ma fëggoon tey na may MMA tamit damay dem ndax sport la man sport laa xam dafa kii de MMA sa bakkan sa sport sax xam nga ne maanaam MMA laa gën a xam nga poussé de kenn su koo gis si géewu MMA mais est ce que xam nga ne man MMA laa gën a mën sax ka ay kickboxing ay bëre yi kii ni mu tëddee ni mu jaaxaanee nii nii nii bu yéen a wuñ mais bokkul mais léegi da xool léegi buuse buuse combat moog Reug Reug gis nga lim fa xe gis nga lim fa def sama combat maag Sonko gis nga li ma fa def ah, bokkul maanaam ma damaa mën a xeex ba pare man sport bi dafa nekk loo xam dama ko gëm du nekkul lu may caaxaanee. Mhm. te parce lu nekk xaj na si. mu ne la fa dóor nga wan sa lamañ jaare fa dee yooyu noonu yëpp. dafa nekk yooyu la la jeunesse moo tax. ah yooyu la la bi di tiital. maanaam man damaa mën damaa mën aar bi. Ah. man dama mën MMA. Mhm. maanaam xam nga boo jaaree ci affaire u jàmbaar. nekk ah. xale yàgg xeex. yàgg a xeex ak ay mag. Mhm. di leen duma. kon tey man bu ñu ma wooyee si yii nii mm. nii man yii maanaam man du sax <laughs> tiit ba pare est-ce xam nga ni sport bii de gis nga dugg fii ñu tëj kaas bi nii nekkul ñu ñëpp a ko ñeme de tëj bi rek dèjà fit la ilaaha maanaam fii ak a garaaw comme ça nga mm. dugg nii si biir kaas bi nii rek war a combat loolu boo nekkul jàmbaar dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg barke Serigne Touba ah, doo am na yoo xam sax ah, doo ko taal. ah mais mais mais mais mais mais mais mais est-ce que kon léegi. Euh, ki nga xamante ni nag moom mooy. foo xam te ne amul daw ah. génn saako xam nga mm-hmm. làmb sax mun nañ la jàpp di la mm-hmm. dóor nga daw génn. Mm-hmm. mais fii fooy daw génn. waaw daa ma foo daw. mais fii maanaam dugg teg sa bakkan la. mais li ñu gis Bousse Bousse xam nga perte na combat bi te bett Sénégalais sax d'ailleurs li li doon li doon bett kay moom mu gagné. Euh, mais comme gagné nañ ko léegi Bousse ak El Hadj Mbaye. El Hadj Mbaye nee nañ. dafa yéex xaalis bi bouse encaisse bi. <laughs> lu bëgg lu boobu nga est ce que combat la. bara ñu yóbbu leen MMA. waaw loolu nag combat bu neex la. Uh-huh. non bu ñu leen yóbbu MMA nañ leen yóbbu kickboxing. waaw ah, kickboxing waaw kickboxing maanaam MMA. Uh-huh. bokkul. waaw MMA boobu maanaam. MMA xanaa xam MMA sa bakkan sa xañ na si. waaw dafa ndax foofu am na ay. waaw xam nga. am na xool nit am na xool nit dóor kalaate xam nga bokkul quoi dafa doo takk ay gants. dangay taq benn affaire boo xam te nii rek da ngay mën a xeex normalement. Mm-hmm. waaw bokkul quoi yéen a leen foofu daal ñoom ñaar. non yéen a moo leen foofu bu dee kickboxing bi moom mun nañ yem ci kickboxing bi. waaw ñoom ñaar moom mun nañ yem ci kickboxing bi quoi. xare kuy gagné ñoom ñaar nga yaakaar El Hadj Mbaye. parce que ñaar ñëpp a jël poids ñaari xarit yooyu. waaw non euh. ñoom ñaar nag bu ñu doon xeex moom combat bu neex. Euh. waaw di nga gis combat bu neex. Euh. Boussa ak El Hadj Mbaye rek kickboxing. kickboxing loolu beneen affaire la quoi. <laughs> mais yaa El Hadj Mbaye moom doo leen doo leen doo leen. non ankay mooy eh. yow dégg ma eh, ji eh, lu ma la instant bii nii nii nii nii. wallaahi du ma la nëbbu de. yi Eric Favre. maanaam man instant yi man Reug laa soxla si kickboxing bi. déet non ko laal. barke laa soxla si kickboxing bi. bu xam nga lu tax ma wax loolu. maanaam Reug dama ko seetaan. Mhm. moom moog buuse. xam nga kickboxing nag te xee nekkul MMA lañ doon xeex. man moom Reug Reug MMA bi moo ma ko gën a miin moo ma fa mën. Mm-hmm. làmb ji moo ma fa mën. Mm-hmm. mais kickboxing man maa fa mën Reug Reug. Ah waaw. noo ko fa mënee. te parce que lii dama koo jàng man bii mooy sama deuxième combat kickboxing. te ñëpp ñëpp benn wax bi la ñuy wax. Bou Siteu la moo tax joxuñu ko victoire. Uh-huh. ndax lan man kickboxing yi nii lii man maay ñëw. def loo xamante ne nii xam nga bokkul ci kickboxing ay mbot. Eh, bu daa ne ko jàngi xool combat bi rek. non combat dafa neex. dafa neex dafa neex maanaam ngay seetaan loo xam ne <laughs> yaa gagné. xam nga dafa neex quoi. fekkoon Sonko Tine daf maa duma. Ah. dóor ma ba ma kawte xam nga toj sama kanam gi yëpp. Ah. day nekk loo xam ne nii xam nga ah. du neex mais loo xamante ne nii man maa lii fi am yëpp maa ko def. mais mais mais mais doole. ci yooyu waaye du doole affaire maanaam lii nii du doole de. lii ku ah. jàng xeex la kickboxing ah. ak jàng xeex tànk. Ah. te man Reug man man lii maa ngi ko si gën a xor man lii dama ko mën. Reug Reug c'est la première fois mu xeex kickboxing te man dama dem abijan jàng kickboxing jàng ko boo xam te ni sama moroom bu ñu ma géewaloon nii kickboxing noo mënti toll. dama lay duma. parce que alxuraan ñu tëgg combat bi yaa ngi waaye man moom laa soxla nga naa mooy moom mais yow buuse bu buuse bu xeex ak rëg rëg léegi léegi taxawal léegi yow buuse bu xeex ak rëg rëg war a xeex ak rëg rëg ban différence la am xoolal li ma la wax. Ah, yow dem ba ko. waaw dem entraîné dem ah. jàng ko. Ah. buuse ko xool buuse xam ne jàngul kickboxing. comme lu ma la wax ne la xaalis moo ko si dugal la. waaw mais jàng ko. Mm-hmm. te gis nga dañ ko de dañ koo remise bu naaw. <laughs> taxaw dañ koo remise bu naaw. combat yàggul sax. combat bi yàggul baax yàggul. 4 la lépp lépp. yow bu doon rëg sax Sénégal yi sax mu sax. góosu waaye dégg nga wala maa ngi rëg rëg 3 lay nekk round bu nekk 5 minutes 5 minutes. xam nga round ne ay 3 minutes la. mais round bu nekk 5 minutes 5 minutes maag rëg rëg. te mën nga mën nga moytu kóom noonu ak taay ni mu kiiyee noonu. maanaam kickboxing damaa jàng sport kickboxing maanaam guddi yi dafa nekk sama bopp xanaa xam làmb ji sax léegi nekkatu sama bopp. ah bon wallaahi. comme ay bëri nii ay bëri yii nii yooyu noonu man léegi ma bàyyi làmb sax. loolu nga waxoon fan yii parce léegi ma bàyyi làmb. ndax lan te parce que damaa da maanaam man lii laa mën. est-ce que lu xaalis bi jeunesse bi nee nañ ma buusita. Mm-hmm. lii ngay pratiquer ku ci mel ni Yaxya mm-hmm. kii Yaxya Diop. Mm-hmm. Yaxya Diop bu Eric Favre. combat bi Dubaay la ko fekk. mais mais ba may ñibbi si oto bi la ma woo ne ma te mu ngi Dubaay mu woo ma appel direct. waxtaan ak man ne ma Bou Siteu instant yi làmb ji danga koy bàyyi nga fixé si kickboxing bi ndax lii nii dafa dafa dafa xool maanaam moom sax dafa bokkoon si si si si gars yi doon aalu ne tax joxuñu ko victoire. parce que da ko metti quoi. waaw dafa metti ñu moom. ñu defee nga ko moom defee nga ko. defee comme. defee mooy maanaam. Euh, moom nga bëgg maanaam dafa bokk léegi samay adversaire mais boole na leen. bo boole nañu. waaw. mais mais déggoo léegi léegi lu ma la déggu man la euh, Reug Reug bu bu bu bu dajeeg buuse Ketchup mii. mais mais mais buuse bu war a dajeeg kii nii taxaw nii kickboxing lii du làmb de. kickboxing la. te dama koo jàng dama koo mën. Mm. kon gars yi Eric bu dee yaa ngi mooy dégg wala Beuz. Mm. waaw Ibrahima Faye Beuz. bu dee yaa ngi may dégg wala Yaxya Diop. Mm-hmm. waaw bay wala ku si mel ni sax David bu dee yaa may dégg sax. waaw bi bu may joxaat na ma na ma na ma na ma booleeg Reug Reug. na ma jox Reug Reug ma duma maanaam bu koy jàngal xeexu kickboxing du làmb de. dama bëgg nga jël làmb nga tegee ko nële. Eh. kickboxing laa la wax. Eh. mag Reug Reug ma duma ko dumay métti. mais li ma jaaxase yow damay gis yow benn assurance wóolu sa bopp caaxaanoo. mais caaxaanu ma. man caaxaanu ma de man nekk ma fii di man duma ma man man ay ay kickboxing yi du ma si wane affaire comédie de. Mm-hmm. wala ay ñëw nii ay dóor ma ma kawtara mu jeex lii tamit mooy lan ngàdd bi xet mais xoolal lii. <laughs> Boucher de kickboxing ka moo ko si mos sa gis mu rëpp. <laughs> mais yii man dinaa ko def di di yeblu sama bopp di di di di rëpp. wala nga may remise may naaw ak yooyu yooyu yooyu yooyu kii wu ma. kii daa mel ni daal wala. xam nga yaa ngi gën a xam man daal dama gars yi jox rëg rëg xam nga ma jàngal ko kickboxing. waaw loolu daal moo nekk la sol te kickboxing du làmb. xam nga làmb ay jàpp mbot dafa am. te lii kickboxing la faayet la tànk la ak loxo. te damaa dem Abidjan. Mm. gars def ci man xam-xam. Mm. kon xam-xam boobu dañ ma war a boole samp yow ma wane sama bopp. waaw vraiment jot na. billaahi jot na eh, mais fi ñu daaneel ko kii bi mooy Tapha ak ak Balla Gaye seen combat bi jege si na Balla Gaye sa grand la sa frère la. géejawaay mm-hmm. mais yow nga gis Balla nga gis Tapha Tine. Mm-hmm. gis Balla Gaye Tapha a nekkoon. Mm-hmm. nga gis nii nii Balla moom fu nga koy jaar. Tapha bi nga gis nii. Mm. jàpp nga ni Balla mën noo am fu nga ko jaar. waaw xam nga combat bi des na. Mhm. combat bi des na le 20 bi juillet ah. waaw presque ñëw na ba pare. Ah, mais mais si diggante boobu noonu lu ne mun na ci am. Mhm. si diggante boobu mun nga ñëw gis Balla gay boo xam ne ñëpp ay téye seen gémmoñ na waa lii lan la. Mhm. sport moo demee noonu. tey di nga jox nit favori ñu dem ba ci kanam dootoo gisati favori. waaw moo loolu moo nekk nekk sport keroog moom gis nga photo bi moom nee na keroog daa eh, Balla Gaye nee da ngaa tegale mu a waa benn njaxas Baye la. waaw dëgg la ah. dëgg la dafa tegale mais nag tafaatin ku ko xool di ngay xam ne tafaatin am na yokkute. Mm-hmm. maanaam léegi da jël benn affaire rek léegi danga ngay xool da ngay xool si tafaatin combat moo moo ëmm seen bii paase. mais boo ko xoolee foofu te tafaatin ku ko xool xam ne day entraîné day liggéey. te Balla Gaye 2 mii ñëpp xam nañu dafa juge si ay tolof tolof. xam nga am am amoon ay ay ay ay feebar yoo xam ne xam nga dab ko. loola war a sax ñu bëri sax Balla gay 2 di xaw a laam-laamee. te moo Tapha Tine xe am am na fu ñu jaar. Balla Gaye 2 daan ko. kon tey lii revanche la boo xamante ne nii xam nga. Mm-hmm. waaw Balla Gaye bi géejawaay bi ñëpp a ngi toog di koy xaar xam waaw te te maanaam na xam ni champion lay dajal. Mhm. bu mu ko xeeb. bu mu ko xeeb waaw bu mu ko euh, xeeb. mais du ma dem te laajuma la sa turandoo Siteu jóge na États-Unis ñëw. Mhm. combat royal royal lay bëre. ak Siteu ak euh, Modou Lo. dèjà Modou Lo ne nag wax ji lu mu lu mu baree baree bare. Mhm. yow lay metti waaw signature contrat bi Siteu nu mu ñemee waa ji noonu. loolu oh, oh, gisoon day kii jaay lamb ji waaw non Siteu moom non Siteu ku ko xam-xam ne maa ngi moom ñoo yem ñun dañuy jaay bis dañuy jaay lamb. te parce que ñun mënoo ñoo yëkkati ay centaine de millions nga fay ñu ko te duñ jaay bis bi. am ampleur bu yóbbu bis bi. te Siteu ku ko xam-xam ni xam ma day neexal. Mm-hmm. mais ñëpp xam nañ ni combat bii ni moom Modou Lo. Mm-hmm. titre roi des arènes lay bëre. Mm-hmm. titre roi des arènes lay bëre. te te te waa jàmm gan namm nañ. roi des arènes. te roi des arènes jàmm gan yaakaaruñ ko si kenn ku du si Siteu guddi yi nii. waaw yaakaaruñ ko si kenn te parce que jàmm gën Siteu moo fa nekk benn phénomène boo xamante nii xam ma waaw nit xam nga ba pare mu dem bay bëree titre roi des arènes mais lenn rek laay wax si Siteu man dafa jox cër Modou Lo ba mu ëpp ah da nga gis loolu dama koo gis mm-hmm. te Modou Lo pour man képp kuy bëreeg moom Modou Lo waroo ko jox cër mais xoolal Balla Gaye 2 mm-hmm. man da ngay xool ci Balla Gaye 2 ak Modou xarañ Lo mm-hmm. Balla Gaye de jox na Modou Lo cër joxu ko cër ci xas-xas loo ko cër dafa ñëw xam nga mooy loolu mais dama gis surtout dafa jox Modou Lo cër ba ba dama gis ci Modou ci kaw loolu mu am ci ci cër bi ko Siteu jox <laughs> te te Modou Lo da nga ko war a ruube waaw Modou Lo dafa nekk ni ko wax boo ko bëggee daan foog nga ruube foog nga ruube ko foog nga ruube ko merloo ko yëngal ko xam nga jaax ma gën a xam agressé ko mhm. mais dama gis Siteu yow sax loolu nga gis gis nga ni Siteu da koo jox cër. waaw di jéem pour yëngal ko mais ci biir da ngay sant ni au fond. dox na ko benn cër bi quoi mais Siteu musul signature ni mais Siteu xoolal signature am bi passé moom Lac dafa indil Lac de Guiers moo tax gisoo Lac de Guiers sax mënu ko daan. Mm-hmm. Lac de Guiers mënu ko daan ndax ndax Siteu da ko da koo tegal lu doy waar. Mm-hmm. pour man nag Siteu dafa war a bii di ñëwaat seen face à face bii di ñëw. dafa war a tegal mu loolu doy waar. maanaam cër bi waru. cër bi ah. dëgg la premier signature mun nga ko jox cër. Mm-hmm. mais boo leen ñëwaatee. Ah, pour man waru ko jox cër. Ah, man làmb man dama man dama yàgg si làmb de. Mm-hmm. te dama lay wax loo xam te ne man mbëri mag yi dama leen a xam. Mm-hmm. ku ci nekk li li li koy daan dama koo xam. daa yàgg ak ñoom. waaw yàgg ak moo tax moo tax may rayante nii sax pour gaaw ñoom ñoom ñoom ñii ñii ñëpp avant ñuy bàyyi làmb. ma ma <laughs> leen a xam. ah damaa nga bëgg a leen encore. ah yow sànq nga yow king boxing bi nga gën a valoriser. maanaam instant dama dama damay profité pour. Eh. gaaw am benn kattan boo. xam te ne nii balaa ñuy bàyyi. mais loolu dama xam li leen di daan. lan moo leen di daan Bou Siteu ñii. mais ñii loolu leen daan ak muy indi leen yoolee. doo leen may tus. man Modou Lo mii nii man leen rek laa ñaan yàlla Modou Lo. Hmm. ngir yàlla rek xaar ma rek. <laughs> xaar ma dans ah. dans dans quatre ans. quatre ans. quatre ans euh, dans quatre ans. mënuloo na ma xaar eh, waaw non loolu laa ko xarañ. Ah. Ah. laa lay ñaan ngir ah. yàlla rek bul bàyyeegum. xanaa xam yaa gën a tax may gën a rey sama bopp mais dans quatre ans laa la may xaar ma dans quatre ans. nit ñi dinañ gisaat beneen phénomène bu boo xam te ni buy judduwaat ci làmb. barki Serigne Touba Mbacke. dans quatre ans là ñi ngi dinañ gisaat beneen Bou Siteu <laughs> boo xam te ni kenn su ko woon xalaat ci àdduna. <laughs> waaw barki Alxuraan. waaw yàlla na lu waaw noonu la demee nag ndax États-Unis daal moo des. Mhm. États-Unis moom dans deux ans di nga di nga ko dab mais bu dee ay Côte d'Ivoire ak moom. Mhm. damay ragal mu yéex tuuti nag bu. mais maanaam Côte d'Ivoire est-ce xam nga ni Côte d'Ivoire. Euh. Côte d'Ivoire wallaahi. Mhm. ak maanaam Côte d'Ivoire man fi ma nekkoon. foofu entraînement rek moo fa am. ndeysaan ville la quoi. stade ville la boo xamante ne nii boo génnee sax doo amul doo génn. waaw. ndax foofu ñaari pitbull lañ ma fa taqal boo xam te nii du ma tëban ñëpp xam nañu ñeme ma pitbull. ñaari pitbull fa la ñuy takkale pitbull ñaari pitbull yoo xam ne si maanaam si wetu buntu entrée bi. boo eh? duggee si kër gi nii. Eh? seen seen néeg a ngi noonu. Eh? léegi nii nii ngay def romb leen ruq bi jàddaat dugg. te man ñeme ma ñëpp xam nañ ñeme ma xaj. léegi man est léegi man est man ñeme naa naan damay génn sax naan maa ngi doxandu si wetu buntu kër gi entraînement rek may génnee taman su may dem entraînement ay yu may jël si. Euh. ngi foofu gaare. Mm. oto boo xam moo may yóbbu salle moo may yóbbu entraînement. mais ñoom est-ce que ñoom xamuñu ni yow da ngaa ragal xaj. da ngaa ragal euh, moo tax ñu takk ko si. mais bu nice. yow boo man ñaaw ma xaj de. sama <laughs> blague wallaay te pitbull laa gën a ragal ci àdduna ñaari pitbull yu doy waar. kon yow doo seet émotion. maanaam yi man bu may génn di dem saal nii ah. sax. comme ça lañ nekk mais ah. pour ma xool leen nii sax. ci kaaf bi ni bu di leen xoolee leen gis sax amoo woon fit bi xam nga. kon kooku tey ba mu demee foofu liggéey rek la fa doon def. mais kon yow Eumeu Sène moom ko seeti moom. Hmm? Eumeu Sène doo ko du ma ko. doo dem këram de ay pitbull la fa nekk. yii Eumeu Sène moom doo leen jaanoo yow yow yow nag maa mus a gis may nekk fi maa maa ngi xaritoog ay ay Eumeu Sène Gris Bordeaux sax dégg naa am na pitbull moo tax ñooñu du ma xaritoog ñoom ci àdduna. <laughs> mais lu tax doo xaritoog ñoom. du ma xaritoog ñoom te que ñoom ñoom ñoom ñoom li nga xam te ni yooyu la nekkal euh. man ñeme ma affaire yooyu ay pitbull ak ay ay belge allemand yooyu man yooyu mbër bu ko ci am du ma musal ñëw sa kër du la def sax xarit comme ñuy déggante dégganteeg yooyu ay xarit ak yooyu du ma sekk ak yow sax yooyu ah du ma sax sekk ak ñoom yooyu te parce que ñeme ma pitbull ak Serigne Touba Mbacke. kon yow Tivaouane ko sax. kon sa koñ ku fa yar pitbull nga wax ak moom de. non moom. foo am na sax ñu fay yar xaj mais maanaam sawa sawa laa sekk ñoom. wala nga may génn nga taxaw si bunt bi man bëggee la noonu. te xam naa ni. foofu ku si nekk kër gi si am xaj yëpp xam naa ko. mais ñu daan ne sa xarit nag xam naa duñ ko ma masawu Lona Ndiago bu tegale ñaari defet. Mhm. bon presque yéen a bokk euh, tra euh, maanaam yoon ndax defoon ngeen euh, seen kii bi. kan moo indi morom ku si kan moo woon moo moromoon pour ñu combat kan lañ kan lañ wax pour nga wut adversaire mu ne ko na woo Bou Siteu wala na woo. waaw boobu Laurent Ndiago la Laurent moo def loolu. waaw moom moo defoon loolu Eric Fa mooy premier sama premier combat kickboxing. waaw mu rafet waaye Laurent suñu suñu frère. mais lan ngay wax ci defetam bi donc. waaw defetam bi waaw dama koy masow nag. di ko wax ne xam nga. waaw Laurent Ndiago def na li mu daan def. we mais xama maanaam dafa daje koo xamante ni nii sekk ndaanaan waaw dafa daje mbër boo xamante ni maanaam kenn dootu ko présenté ci làmb ndax ku daan magul Laurent Ndiago mbay xaddaa mbay xaddaa ñëpp xam nañ ko biir jàmm gën géant la te xam nga ay ay mag ay magul liis njaago lañ magul Laurent Ndiago lañ te dafa dafa dafa dafa bëreeg sekk ndaanaan sekk ndaanaan daan ko xam nga ñun ci làmb lañ nekk waaw moo tax Laurent Ndiago nag ba ba ma déggee combat bi taxaw la ñoom ñaar ba ñuy bëre Laurent Ndiago maanaam waroon na ko gën a jox cër maanaam waroon na ko gën a jox cër boo xam te nii kii kat daan na suma mag mbay xadaa mais amaana mais mais ñëpp gis nañu Laurent Ndiago nu mu ñëwee. ba pare waru woon xeex. waaw waroon na ñëw xam am nu mu bëreeg waaw moo ko sut moo ko sut ñun xamante nañ maanaam ñun. man lépp lu ma la wax ci làmb rek taxal tee te parce que ñun ñun ñëpp ay génération lañ. waaw te ñun ñëpp xamante nañ sunu biir ku si nekk li nga li nga xamante ne diw loolu la mën. Mm-hmm. ku si nekk xam nga ko. Mm-hmm. waaw mu nekk loo xam ne làmb la woon te xama Laurent Ndiago dama koy félicité di ko wax ne xamoon na gën a yokkaat xam ne làmb mu ci kanamam waa tegal la deux loolu amul lenn lu mu yàq sa carrière mm-hmm. parce que Bou Siteu ñëpp xam nañ ni Bou Siteu guddi yi mm-hmm. su may wax mbër ëpp ma défaite <laughs> maa Papa Boy Djiné mbër ëpp ñoo défaite maanaam maanaam lamb ji dafa am ñoo xam te maanaam défaite day gën a yokk seen popularité mm-hmm. man dama bokk si côté boobu te parce que Bou Siteu nu muy jaayee lamb di neexal bis man est-ce que xam nga ne man jeunesse bi mi ñuy toppee ma ay victoire ren wallaahi. Hmm. man su ma amee defet si la si la sama tur di gën a yokk ma dama dama dama gis loolu quoi. Euh, waaw mais bëggoo defet. ah mais bëggoo defet. non bëgguma defet. Hmm. mais maanaam defet ci dëgg la bëgguma defet de. Hmm. mais su ma amee defet damay gis ni day am day day day dafa may tegloo paa. jeunesse bi daal lañ lay kii dafa may tegloo paa combat yi journée yi day gën a ñëw. <laughs> ndax Bou Siteu bu daanoo xam nga TikTok bi ñëpp ah. dugal ko daanu na xam nga mbaru jeunesse yi xam nga bi yéen xam nga kii daal xam nga xam nga rek maanaam yooyu dafa nekk ay communiqué yoo xam te ni day am lu muy def ci man comme sax man su ma daanoo rek wax ji mhm. day am lu muy yëkkati ci man waa dafa am ñoo ah, xam ne maanaam ah, wax dafa dafa leen jig maaji moom jarul tamit muy bàyyi comme muy bàyyi non papa booy jëne du bàyyi instant am na combat sax waaw instant yi gis naa benn affiche am bu taxaw mook euh, mm. ban waaw Papa Boy Djiné waaw amaan na combat mais man ko ñaanal combat bii nii yàlla dafa ko ndam boo xoolee sax fii nii mm. Sonko din bañ ko joxee victoire mm. maanaam mbégte bi ma àndal te am na ñu ma doon doon bu ñu leen kii dañuy découragé mais gis nga damaa ñëw jàppaat loxo bi yëgate xam nga tàcc public bi jeunesse bi nag ñëw xam nga place du souvenir fees fa xam nga eh, eh, maanaam man eh, man damaa dem ba gëm ni man man jeunesse bi fépp fu ñu woo Bou Siteu jeunesse bi dañuy ñëw daw seet si ko mm-hmm. soxna yi ay jigéen ñoo xam xamante ne dëkk ba almade ay mamel mm-hmm. def mobilisation boo xamante ne nii xam nga ñëw mm-hmm. te ndeysaan ah, ah, musu ma leen sax gis papa booy junne doo ko yóbbu si king boxing bi kon mu daak fa wër sa gëm tuuti wala non nice papa booy junne na fa ñëw ba pare nag fàtte naa la wax benn affaire mm. king boxing bi xam nga sànq Reug Reug laa la waxoon ak tafsir eh mooy kii ki doon bëre tafsir borom rasam non waaw tafsir mooy kii champion la mais soxla naa ko tamit si kickboxing bi. bu bu boo xoolee kanamam bi. combat bi passé moo moo moo gagné jaaw jaaw mais ñoo nekk ndoon Abidjan. Uh-huh. ñoo bokkoon benn ah, club bi waaw ñu ah. dama bëgg a jëlal revanche Diaw ndax Diaw ñoom ñoo ma doon préparé ba ma nekkee Abidjan. kon dafa jot tafsir mii nii. Hmm. bëgg naa Eric Favo tëgg sunu combat. ku ci nekk ni buzz nag bu dee yaa ngi may dëgg ak ku ci mel ni Yaxya Diop. Tafsir bëgg naa gars yi tëgg Eric Favo sama troisième combat kickboxing mu tëgg ko. waaw bu ko neexee sax na ko yóbbu dëkkam Lyon. waaw Tafsir Tafsir bi dama dama dama gis si moom ay faay ay eh. affaire yu cuuna yoo xam te dama koy eh. gis. Eh. ci ay combat biir kickbox kickboxing. moo tax bu ma ko joxee moog Reug Reug. mu corriger leen si kickboxing. mais mais bu man moom kontaan naa. c'est Euh, kontaan nañ ci ànd ak yow waxtaan si yow xam nga yow suñu euh, suñu waay nga mais nag am na ñuy ñii bon yéen ñaar yéen a mais am na ñoo naan yaa Papa Boy Djiné comme wala du doon combat non non Papa Boy Djiné maa ñoo bokk benn koñ mu nekk koo xam te ne xam nga suma frère la side la si secteur la Papa Boy Djiné ñoo fowandoo ndeysaan xanaa xam ñu bëri ndeysaan xam nga ñu bëri sax duñ gis ma Papa booy Djiné di di di kii mm-hmm. mais Papa Boy Djiné xola ñoo juddoondoo yarondoo doon ànd man ak moom ndeysaan Papa Boy Djiné nattoom bi hmm. nattoom bi ko daloon hmm. looloo ñu tàqale ma moom mais këram seen kër laa doon nekk fa lañ doon ñoo doon ànd laa la guddeeg bëccëg hmm. doon dem ay ngor di def lépp ndeysaan parce que arxuraan mais natom bi moom moom moo ñu féewale ma moom ak xam rek mu yàgg si prison bi xam génn presque def na fa ay trois ans. trois waaw def na fa ay trois ans presque si loo xam te ne ndeysaan deful yëgul. xam nga ñu teel a fa trois ans. Mhm. mais bañ ko attee xam nga lañ xam ne xam nga moom ndeysaan du si dara. mais Papa Boy Diop ñoo juddandoo yarandoo Papa Boy Diop booy bu ndaw la barke alxuraan. ndeysaan ndeysaan euh, mais kontaan nañ nag bàyyi la nga tàggatoo seen Teranga waaw li may tàggatoo rek muy sénégalais yëpp gis ah. nañ nii xam nga mm. mooy loolu ñëpp gis nañ ni buusite xam nga waaw sama combat yi ma xeex fan yi nii yëpp ñëpp xam nañ si dese laa jugee. Mhm, waaw ku si mel ni suma mag boo xam te ne xam nga ñoo bokk ndey ak baay. man man wax ñu si parce que ñëwoon yàq émission waaw xam nga man maa topp si moom. Mhm. bu génn àdduna xam nga depuis Espagne. xam nga moo tax gis nga ak ak tamit fekkoon te fekkoon fekk yàlla defoon xam nga signé woon nga ak ay net nga signé ay contrat lekk avance jàmbur. Mhm. xam kon. mu tombeek nag sama mag décédé. Mhm. mu tombeek nag si si si si veille lépp combat bi. Mhm. waaw moo taxoon xam nga yaa ma gan réglement bi ne ma. nii ak nii la demee da ngaa war a ñëw remplir sa contrat. Mhm. waaw ma ñëw nag ñëw remplir sama ñaari contrat yëpp. waaw mu nekk loo xam te ne xam nga tey ji su ma neexoon du ma dem remplir sama contrat yàq ay bisu jàmbur. mais nit ku la wóolu tëggal la combat fay la ay centaine de millions. xam nga kon am na leen loo xam ne bu amee règlement bi nag kat nii ak nii la demee. kon damay ñëw rek topp li règlement bi wax. ma dem bëre baay Baye Ndiaye ma ñëw rempli contrat bi foofu. ñëwaat Eric Favre ñëw rempli contrat ndax ñoom dañoo amoon si Bou Siteu wóor dañoo wóolu Bou Siteu. Mhm. wóolu ko seen bis boo xam te nii Bou Siteu mii ñu dugg suñu bis kat. Mhm. suñu bis bii nii kat dina réussir. Mhm. kon waruma ñëw di yàq seen bis. moo tax am naa dese mais ñëw naa rempli sama contrat di ñaana suma mag bi génn àdduna góoraa di ko ñaanal yàlla xaare ko si ci àjjana firdawsi xam xama waaw di ko ñaanal suufu Touba oyof ci kawam xam mm-hmm. di ñaanal képp kum mu fa fekk rek mm-hmm. yàlla yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel xam nga si leen ci àjjanay Firdawsi yi yàlla na ko Serigne Touba teeru mm-hmm. ndax su ma mag la boo xam te ne xam nekkoon koo xam te mooy soutien de famille suñu gàlle xam nga nekkoon koo xam te xam moo ñu doon taxawu ci lépp kon ku mel noonu bu ma ko ñàkkee rek day metti waa mais damay damay gëm yàlla xam ni yàlla yàgg naa toog ñu may tàgge ay ay ay ay magu jàmbur di ma tàgge ay yaayu jàmbur kon tey suñ demee ba tey deux mille vingt quatre yàlla yàlla yàlla yàlla dugg sama famille. am ku mu fa jël dama koy nangu. Mm-hmm. te parce que yàggoon na jël ay ay yeneen famille jàmbur xam nga ñoo xam te ni ñu ma xam ñu ma jege leen. waaw gis nga ndeysaan xoolal lool rek. Mm-hmm. mu nekk loo xam te ni lu metti la. Mm-hmm. waaw mais. metti na nag sa deret koo bokkal mu génn àdduna waaw maanaam c'est instant yi yàlla mais yàlla na fa gëj waaw man samay samay samay sama sama famille presque ñu ngi soo ko am eh. ku génn àdduna man dafa ay metti mais imagine doo sa yaay ñu mu jur ñëpp ak sa papa xam nga kenn mu si yàlla def am ku ci génn àdduna day nekk loo xam lu metti la c'est la mm. première fois mm. mais na fi géej mm, te xam nga waaw maa ngi ñaan yàlla yàlla daal bu demee bay duggaa sama famille di fa jël nit yaa yàlla nag jël ma kon jël ma nag nga bàyyi fa ñeneen ñi <laughs> ah, parce que xam nga mooy loolu xam nga àdduna daal c'est la vie daal mais dañuy ñaan tamit yàlla yàlla nañ fi yàlla bàyyi ñu xam nga ñu ñu dem daal ba teral yaay mm-hmm. yóbbu yaay maaka yóbbu leen xama defaral leen lépp waaw moo loolu day am parce que yow xaw ma dem naa sa kër gis naa te ba may ñëw sa kër a dafa ay centaine de millions tabax kër gi xam ak yeneen ak yeneen yoo xam te nii xam mënuñu toog fii sax di wax waaw nekkoon na koo xam ne daal ku ñu amuloon njëriñ la te xam nga nekkoon soutien de famille mm-hmm. waaw nekkoon koo xam te daal waaw ku ma yërëmoon nag. koo xam te ne ndeysaan avant muy tukki fii la nekkoon yoroon atelier menuisier ma mhm. lu mu defaru woon si lal baaxul. maanaam su ma mag boobu noonu lu mu defaru jub. koo xam nii maanaam xam ak nit. Mhm. maanaam du yoralul maanaam yoralul nit bor. képp ku mu jëflanteel ci lal defara la lal boo xam te yow da ngay sax kontaan ba yëgate xaas ñëw dooleel ko. Mhm. mu liggéey na ba yàlla def ko mu yóbbu ko Espagne xam moo jabaram bi nekk Espagne ak ndeysaan benn doom la fa am bébé Fatima ndeysaan di ñaanal jabaram nenne di ko ñaanal xolu muñ mm-hmm. waaw di ko wax ni ndeysaan metti na trop mm-hmm. mais nenne maa ngi koy ñaanal xolu muñ bu baax a baax a baax waaw góoraa daal famille bi daal amuñu fayam waaw li mu waroon def yëpp def na ko. waaw def na lépp. barke Seydina Muhammad ndeysaan. dëgg la mais kontaan nañ mais kontaan nga xanaa si ñëw bi ñëw seen teraanga. waaw ndeysaan waaw kontaan rek si seen teraanga. waaw seen teraanga nekk site boo xam te nii xam nga mm. waaw site bu am doole la te xam nga mm. bëgg naa daal gars yi yëpp ndax waaw di xaar Bou Siteu ndax mm. Bou Siteu. waaw ñëpp nañ ko xaaraa ci seen teraanga. waaw di di nuyu ñëpp nag di nuyu kilifa yi ku si mel ne Abdou Aziz Diouf uh-huh. président ASC HLM ba affaire bi amee daf ma woo jaale ma xam nga ku si mel ni tamit Babacar Ndiak Babacar Ndiak bu Aala Ndiaye Babacar Ndiak tam suma papa woo na ma xam nga jaale ma ndeysaan xam nga ak ku ci mel ni Masata Aala Ndiaye woo na ma xam nga waaw famille Aala Ndiaye bi ñoom ñëpp ndeysaan maa ngi ñaan yàlla defal leen jaamu kontaan naa waaw di nuyu autorité yi may jàppale ku si mel ni ay Gofay mouvement réaction. ñoom ñëpp maa di sant Ahmed borom noo Carolina borom ngaay mexe xama di sant tamit waa Tiwaawan Pël. ak suma waa koñ gis naa nuñ taxawoo suma mag bi. waaw ku si mel ne ay ñoom Pape Toufen xam nga ay ñoom Moussa Bass maanaam sama koñ parc. fépp daal gars yi gaara biis dem jiitu ko Touba ñiy dem aéroport jël corps bi xam nga ñu yóbbu ko xam nga mu nekk loo xam te ne daal ndeysaan gis naa taxawaay bi ñu am suma mag waa gis naa lépp waaw di leen ñaanal jàmm bu baax ay ñoom gëy xam nga ñoom ñëpp daal suma waa koñ daal suma ma limee damay juum mais maa ngi bëggee gaa yi bu baax gis naa taxawaay bi ay ñoom Baye Bass Moussa suma booy yi suñu waa group gars yi foofu waaw gis naa taxawaay bi daal barki Seydina maa ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax waaw di nuyu ñëpp di nuyu tamit nag ki ma solol <laughs> ndax damay ñëw léegi jàdd place am ne ko dang dañ maa invité mu ne ma lii ngay sol waaw ku si mel ni. buu faysan waaw benn soxna su baax awa. waaw buu faysan nekk fii nii si yoof bi ndeysaan di jaay ay qualité yoo xam te ne ay qualité niveau. Mm. waaw moo dama fa jaar ma sañseel ma xam ma. Mm. waaw sax baa ngi nii fees dell. waaw ku si mel ni awa maa lay nuyu bu baax waaw buu faysan mm. buu faysan benn kii la boo xam te ne nii xam ma ki ko moom sax ñu ngi doon déggante mu ngi ba extérieur. di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm bu baax a baax mais dama lay sant Ousseyn ndax yow. maag yow yow ay émission yi boolewuñu yow da ngaa baax ba xam ma yow daal du émission daal yow daal dama lay ñaanal yàlla defal la jàmm mm-hmm. yàlla defal ba nga dem ba am sa yëfu bopp mm-hmm. xam ma di la di la sant baax a baax a baax mm-hmm. di nuyu àdduna di nuyu jéeri jéeri ngóone jéeri ngoone maa ngi koy sant production jéeri ngóone koo xam maam Seex koo kenn dootu ko présenté ci réew mi jéeri ngóone di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di nuyu papis bu Pape Diouf koo xam day taxaw jéeri ngóone ci yu bari maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di leen jox seen wàcc waay bu baax di nuyu bu baax di nuyu prési yi xam nga di leen nuyu ku si mel ni ñaambay ñaambay uh-huh. maa ngi koy sant borom tëngeej borom solitique uh-huh. waaw ñaambay maa ngi koy nuyu di nuyu jabaram asu nekk soxna su baax koo xam te ne xam nga yor benn kii boo xam solitique uh-huh. benn agence de voyage solitique di di jàppale étudiants yi di jàppale ñi nga xam te ne xam nga waaw solitique maa ngi koy nuy bu baax a baax a baax a baax ñaambay di nuyu misel bu paka booy maa ngi sant borom tëngeej waaw di la ñaana bu baax a baax misel kontaan naa trop waaw di nuy ay ñoom laay seen business waa Dubaay uh-huh. waa ay ku si may sa may sa ay pël xam nga di ko uh-huh. nuyu bu baax a baax a baax uh-huh. di leen sant bu baax a baax ay ñoom eh, Diop kii takku Diop ñoom takku Diop waa Dubaay ñoom ñëpp ndeysaan maa ngi kontaan ci ñoom bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay bu wër a wér a wér Eh, yeah merci beaucoup alors tey bégtee la ñu am dalal ki nga xamante ni mooy Bou Siteu xawoon naa ko mere nag mais léegi sama waay la ndax dañu gëj a déggante te ndax comme ni mu ko waxee làmb boole wuñu dañ doon ànd si yeneen di waxtaan si yeneen nekk ay frère ba demoon naa sax ba këram nday sant boobu li yëpp amagul ay jeunesse yëpp amagul woon ma mere woon ko ci ni ma bàyyee woon waaye nag comprendre naa ko <laughs> léegi sama waay la te j'espère que doo doo doo gëj fii incha euh, sa kër la et puis non foire ba ci west foire beeg ñëpp yee sama saayir la sa saayir la yee et puis comme moto bi tamit nice amoo problème déplacement donc dëgg ndeysaan ñëw bi du metti quoi non du metti du metti moo tax gisoo ñëw bi nii yaa ma a xam d'accord waaw yow moo loolu yow daal di la <laughs> jàmm baax a baax a baax yow suma frère nga quoi dëgg la dëgg waa kër gi ñëpp nag uh-huh. Uh-huh. merci jox rendez-vous ci uh, yeneen i édition yeneen i émission mu nekkoon seen seen di jégalu bu baax a baax ci téew ma la fi tee bi waroon na fekk yaa ngi dallu ji mais sama waay nga nag vraiment bëggoo mu ñaaw moo tax nga toog euh, def émission bi Ameth Link doomu ndeyu euh, Bou Siteu moom ah doomu ndeyu sama jigéen la Bou Siteu ndeysaan <laughs> euh, Binta laa doomu ndeyu Bou Siteu seen teraanga doomu ndeyu Bou Siteu waaw Ouzin doomu ndey. Bou Siteu ndeysaan Big Taf Big Taf eh. tey jii tamit lii bu amee moom. moo yombal affaire yi. Big Taf eh. suma xarit la suma grand la koo xam te ne kuy conseil Bou Siteu la. Hmm. waa nekk 2STV di def confrontation moo biisu ngoon Big Taf. maa ngi koy ñaana bu baax di nuy tamit. Mhm. il boy lil boy waaw ñoo nekkoon léegi ni si si si si fii si restaurant bi ñoo fa toogoon nii léegi il boy gay maa ngi koy nuyu bu baax a mhm. baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm di nuyu jabaram aadama mhm. waaw moom doom jabaram soxna su baax la waaw di leen sant bu eh, baax di nuyu Big Taf bu baax a baax suñu frère la Big Taf voilà yow euh, bokkoon nañ di liggéey fële ca sans limite te boobu ba léegi dara ñaawul yow sama waaye on se connaît en fait nit ku nit ku baax nga euh, donc voilà day gis dara sax waaw impliqué ma si donc voilà parfois ñu waxtaan mu conseillé ma ndax euh, voilà lépp dafa rafet euh, bu ñaawoon amaana sax parce que Big Taf forcément xam na ni fi laa nekk donc waxtaan nañ si bi may ñëw fii sax yëg na ko te bokk na si ñi ma njëkk a waxtaanal mhm. loolu sama diggante ak moom merci beaucoup jaajëf <laughs>